jéem nañ toog ak moom pour ay solution de développement mu jafe nangu recevoir les tabliers du département muy lu ñu metti loolu nag il est temps ñu wax ko àdduna ñëpp dégg ko ñun bu nee marché bi gëj nañ koo raxas wala 5 ans wala boog marché bi defaruñ ko préfet bi fi nekkoon di euh, Babacar Kane 2023 bi waaye nañ ànd ak moom marché bi ñun ay acteur de développement lañ te ci luy defar rek lañ bokk ci la ñuy dox marché central amul problème dafa am spécificité à part marché central ay trottoir la am ñoo xam ne nous demandons qu'à être encadrés pour le bien de tout le monde exemple dañ ne tablier yi nañ nañ leen bàyyi ñu recaser leen de gauche à droite de ce fait les riverains mënoon nañ utiliser seen buntu kër voie publique bi dinañ ko bàyyi population yi dañuy mën di dugg di génn di ravitaayu librement les commerçants di continuer seen activité commerciale sans problème xam nañ ni marché Tëngéej demande sociale bi muy dégager dafa rëy c'est énorme mais dañoo bëgg nag lii jeex ci loolu nag li nga xamante ni état central moo ko moom dinañ ci yegg waaye lii nga xam ne état communal moo ko moom dañ koy wax ba ñëpp dégg ko ñun dane dañ ne na na loxo bii ñu ko tàllal na ñëw tekki ci loxo ñu ànd defar marché central bu Tëngéej buñ ko defaree lépp loo xam ne développement durable la muy à court à moyen à lon terme muy tey jii muy suba ba ba fii ak jëmmi jamono lépp loo xam luy defar Tëngéej la sunu loxo dina ci dugg son excellence le président de la république monsieur Diomaye Faye ak son monsieur Ousmane Sonko di leen invité ci problème bii am Tëngéej problème bii am Tëngéej se au niveau national Tëngéej nag dañ ne amul problème alors que Tëngéej moo ëpp problème